inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, Antoine jërëjëf Alassane jërëjëf euh, xibaar bi moom ñun ñoo ko déggandoo mu doon xibaar bu bu tiis euh, Ousmane Tanor Dieng nelaw na mi ngi nelawee Bordeaux ca France fan yi passé depuis bi élection yi pare effectivement am na ay xibaar yu ñu jotoon ne ko yaram bi neexul yàlla def na loo xamante ni moom rek moo ko mën mën a def moo ko sañ a def te ñu nangu ko Ousmane Tanor Dieng vous l'avez dit. Euh,